aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sadit lisaani nawir janaani safi amaani wa zid baraay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu santee sunu borom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant Serigne Touba sunu yaakaar teeg ëllëg di ñaanal Serigne Mountakha ayadahu llaahu wa nasara wa afisa wara ak njabootu Serigne Touba gépp di nuyu bu baax ñu ñuy àndal ci euh, site bii di Assalaamy TV ak Assalaamy FM point 0 ci ñi dal Serigne Fallou Gala Silla mu mel ne ñu ngi ci fan yu tedd di fan yoo xam ne bu nu ko tuddee xel yëpp dem ci bis bu tedd bi ñu dëgmal di bisu màggal ak Touba mu mel ne asalaamiya mu am ci liggéey bu am solo bu mu bu mu sumb mooy li ñuy wax 18 safar kàngam mooy bu weer teroo ba bisu màggal ga ñu am ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy dëkk ci dëkk bi te xam mbirum sëriñ bi ci lañ ca war a xam ñu ànd ak ñoom ñu waxtaanee ñu ko ay mawdox yu wóote nag tey ñu teew fii ci kër sëriñ Fallou euh, sëriñ Fallou si sëriñ Fallou si. bokk ci njabootu Serigne baasin si mi nga xam ni kenn la woon ñu àndoon ak sëñ Touba bokk ak sëñ Mor Xari si waajuru góor waajuru jigéen sëñ Fallou mi nag di euh, di bindkat di jàngalekat di jàmbaar lool ci yoonu sëñ Touba wi li ñu bëgg ànd mooy sëñ Touba ci boppam aw dundiinam euh, ci àddina ndax day mel ni àddina dañu fee indi ngir ñu jaamu yàlla ngir ëllëg bu ndelloo mën a texe sëñ nag teel a xam teel a xam àddina bu baax a baax teel koo dëddu lool kon sëñ ni mu doon dundee ci àddina ak li mu xamoon ba tax mu du mu dëddu àddina ak itam jullit bi ci boppam nan la war a nekkee ci àddina te roy roy ko ci sëñ Tuubaa loolu teen taalibe bi ba bu ëllëgee mu mën a mu mën a jariñ ndax bu ñu delluwaatee ci histoire sëñ ci nekk waajuram la dëdd woon àddina ba buur yi ak ñëpp xam ne kii ku dëddu àddina la kon façon googu àddina maanaam te teewut mu jariñu jariñ képp ku ko yaakaar loolu lañ bëgg ànd ak suñu fàllu euh, ñu bàyyi ci xel baax a baax ñu fas yéene koo teewlu xam naa euh, lu ci mën a am rek dañ ci def ngir jubluwaayu màcca wàccaayu màggalu tubaa gi ngir ñu fas yéene sëñ tubaa gën koo jariñoo ndax daa mel lu bari ci moom xam nañ ko waaye nag aw dundinam ci àddina ak yeneen fànn yu bare bare la war naa ma gën a yaatu bu baax a baax kon ñu waajal foofu suñu kàddu jox suñu fàllu mu nuyoo léegi ñu ma dugg ci waxtaan wi wasalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah sëñ Fall waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokk Mouhamed Fadil si Touba moo leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak ndokkeel yi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général des Mourides ak mboolem jabootu Serigne Touba gi yëpp ak mboolem seexi Serigne Touba yi yëpp ak mboolem mbokki Serigne Touba yi yëpp ak mboolem suñu mbokki taalibe yi yëpp di nuyu itam euh, Serigne Mouhamadul Mourtada si xalifa Serigne Malick Bassine si ak mboolem njaboot Serigne Malick Bassine si di nuyu Serigne Mor si Touba Gassane xalifa Serigne Mor Khady si di nuyu itam sunu mag sunu kilifa di Serigne Maam Ibrahima si di xalifa Serigne Modou Khady si sunu wayjur di am mbégte nag di fas yéene dalal ay gan yu tedd yoo xam ne dañoo fas yéene waxtaane ku màgg muy si Ahmadou bàmb ak lenn ci ak dundam ñu fas ko yéene nag ànd ak euh, sëriñ Fallou Galas Silla ak euh, sëriñ Tamsir Gueye ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom lañ àndal ñu ñëw fii ci euh, Assalaamy TV ak rajo TV mm. kon nag incha allahu sëriñ Tamsir loolu mooy nuyoo bi ba njël si waat si ak jàmm macha allah jërëjëf suñu fàllu nuyoo bi am na solo lool ñu lay gën a ndokkeel baax baax di siyaare bu baax njabootu si Malick Bassine gépp ak Serigne Mor Xarit si nga xam ne ñaar lañu woon ñoo xam ne ñoo bokk waajuru góor ak waajuru jigéen àndoon ñoom Cheikhul Khadim jébbal ko seen lépp ànd ak àlaaxira ñu ngi siyaare baax njaboot gi yëpp sëñ fàllu sëñ Tuubaa ku teel a xam àddina la waaye itam ku teel a dëgmal boroomam la alxuraan ñëw na ci lu bari du ñu xamal àddina ak ñàkk soloom ak ni ñu fa war a nekkee waaye itam dañu fàttali bu baax la nekk fa yàlla ci xeetu yërmaane ak njéggal ak ngërëmal yàlla ëllëg yamal xiyaam ak itam dañu fàttali la nekk ëllëg yamal xiyaam ci xeetu tartar ak xeetu mbugal waaye itam dañu fàttali saa su àddina ni mu nekkee euh, lu ab waraakoon di ko misaal comme taw bi muy taw nga xam ne bu tawee ba gàncax gi naat ba àll àll bi verte lool nga gis mu naat waaye bu yàggee nga gis rek daanaka mu naax saay ba dootu dootu nuru dara comme ni ko alxuraan misaale ci aaya boobu xam naa incha lañ ci dugg waaye tam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu waxoon ne àddina dama fee nekk mel ni ab tukkikat bu dox ba sonn toog ci taatu garab di noppalu sëñ bi itam li mu wax ci àddina ak ni ko àddina doon jubloo ak ni mu ko doon dëddoo ci waxam yu tedd yi axbar dunya ilay xablu wa birtaha wa zaal ani ani kablu ila axiri yi xam naa yooyu yëpp incha allah bëgg nañ nga duggal ñu ci baax a baax ci sëñ bi ni nekk woon ci àddina ak ni mu dëddoo woon àddina waaye nag njëriñ li yàlla def ci moom ba tax àddina bépp jëriñu ci moom loolu lañ woon nga dugal ñu ci incha allah sëñ Fallou bismillah waaw kay sëriñ Tamsir ci kàddu yu yi nga xam ne moom yëkkati nga ko jëmee ko ci ku tedd ki sëriñ Touba nag dafa séddale jëmmam ji ñaari xaaj yoo xam ne suñu moo ko defal muy lim wax ne xaabat maqaami xan siwa baaqil xadiim wa inna ni abdun xadimun laa yarim kon diggante abdullahi xadimu rasulillahi mooy jëmm Sëñ Tuubaa ci boppam bu ko defee kon bu dee dañoo jàppee ne abdul euh, xadimu rasulillahi ji moom fadlun xusuusiyun la moom lu ko yàlla jagleel la moom ba mu wax ne man sanna man sanna annahu yakunu abada yurdihi billasi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anniyal xadim bi ma wana an mislihi kullu xadim kon kon mënees naa jàppee ci abdullahi ji kon liñ mën a déggee sëñ Tuubaa man ko cee man ko man man ko man a mën a ngoy ci moom ma xam fi ñu a teg suñu tànk mooy kon Abdoulahi ji Abdoulahi jooju nag mooy mooy jëmm ji nga xam ne moom la ci bindee fi man a mën a roy lan lañ mën a roy ci moom mooy bi nga xamee ne yàlla dogal na mu mu feeñ jamono ci atum 1270 ci gàddaay gi dëpp ak 1853 ba yàlla def mu war a toll ci war a jàng foofu lañu ñu war a mën a tàmbalee roy nit ku baax kon bi jàngi jotee kon Abdullahi ji moo jóg dem jàngi alquranul karim ba mokkal ko ba yegg ci mokkalin waxan wi xamuñu kenn koo xam ne kii yàgg na fa kon Abdullahi ngi noonu kon maa ngi ko roy ci bu jàngi alquran jotee ci ndaw li mu jóg dem jàngi alquran ndax Serigne Touba bi mu fiy toll da koo defoon bi mu weesoo étape boobu it Abdullahi moom yi bi jàng xam-xam jotee ci moom dafa dafa jóg dem jàngi xam-xam ba géeju ci jaar ci kilifa yu bari ñu man cee tudd Mamor Anta waaye juróom bu tedd boobu nga xam ne jànge na ci moom xam-xam lu bari Serigne Ibra Binta Silla moom it Serigne Ibra Binta Sàll ci Saalum moom it si ab si Ahmad Bamba moom it jaar na fa ngir jàng xam-xam jaar na itam ci sëñ maam Samba Tukulóor Ka ngir jàng xam jaar na it ci magam ju tedd jooji di sëriñ Mamor Jaara borom saam ngir jàng xam-xam jaar na it ci Mouhamad Abdullahi Addaymaani moom it ngir jàng xam-xam kon yitteem ju réy jooji moom kon murid yi war nañoo man roy ci Abdullahi jooji Abdullahi mooy kan mooy bi jàngi alxuraan jotee ci moom dafa dem jàngi alxuraan ba mokkal ko bi jàngi xam-xam jotee dafa dem jàng ba ba ne ar nga xam ne jamono boobu mujj na ñaari xam-xam la Sëriñ Tuubaa yor bi nga xam ne bi effort la def ñëpp di ko gis muy gàddu téeréem di jàngi ci ron aw nit ak bi nga xam ne suñu borom moo ko xamal kon nag loolu mooy fàdduloon xosoo si bi ma ne moom borom moo ko ko jagleel boobu mooy bi mu wax ne ah, ba mu wax ne eh, allamani laawul alim eh, mi ma yasaau min ulum waaw mi ma yasaau min ulum jooju nag moom mbirum yàlla la kon waaye nag jàngi xam-xam jot mbirum jàngi xam-xam ñun mboolem ku topp sëñ gëm ko yaakaar ko rek war ngaa bàyyi xel ne sëñ Tuubaa boo déggee ñu ne nit mënuma koo mënuñ koo roy loola wax ji yàqu la kon war na koo mën roy ci jàngi alxuraan jot nga dem jàngi mokkal ko wala nga géeju ci la nga ca man jàngi xam jot mu jàng ba géeju ci mu wëlbati digle lool ngir topp sa wayjur sëñ Tuubaa mën na ko roy ci birrul waalidayni nga xam ne dafa topp ñaari wayjuram yi ba wayjuram wu jigéen bi soxna maam Jaara Buso wuy ji boromam ci Poroxaan sëñ Tuubaa tollu woon ci fukki at ak ñaar wala lu wees ay yeer ay weer te tëriwut diggante boobu diggante mi soxna maam Jaara liggéeyal na ko liggéey bu wér ci ba yàlla def na sax barab bi moo ko defoon xamtu ak donte as bi li muy tuuti tuuti ci wàllu saahir si boobu mu fa nekkoon moo ko defoon xamtu boo xam ne bii biñ demee dem ba war koo ba war koo dundalaat moo yebalaat kilifa gi nga xam ne moo ko yebal ne boo demee ba lii ak lii ak lii kon am na ngërëmal waajuram maam Jaara Buso bi ci des mooy topp sa waajur bu góor diiru si Ahmadu Bamba di nekk ak Maam Mor Anta nga xam ne Maam Mor Anta dund na te juróom benn fukki at ak ñett ci li ñu wax boobu na sëriñ Touba jàng ba ne ar sàmm tënk ci ron kilifteefam ron waajuram ak topp ko rek ci la ci la doon dund loolu kon mu topp ko toppiin wi gën a rafet ci woo xam ne wii maanaam nit war na ko topp ay ñaari waajuram kon ñun murid yi amuñu lay ci mën a ñàkk topp suñuy ñaari waajur ne gis nañ ko Serigne Touba amuñu lay ci ñàkk a mën a jàngi alxuraan gis nañ ko Serigne Touba amuñu lay ci ñàkk war a jàngi xam-xam ne gis nañ ko sëñ Tuubaa bi waaye juróom bi nag wuyee boromam ci 1850 1883 dëppoo ak 1399 euh, euh, ñu ne 1300 kese ci gàddaay gi diggante boobu ci ci ci Mbàkke Kajoor foofu nag la sëñ Tuubaa euh, door a yëkkatee nag ka yëkkati di di di mën a jël li ñuy wax responsabilité kilifteefam ngir liggéeyal boromam ci foofu nag la yëkkati bàyyi taxam di sëñ Mbacke Kajoor di rakki membre Anta Sali ko ci Mbacke Kajoor moom nag daal di jóg di dox wëndeelum boobu nga xam ne moom la doon dox di wër gaa yu baax yi kon mën na ko roy tamit ci jokk ak bokk ndax mboolem kilifa yi yu fi nekk ci réew mi fenn fu ne Serigne Touba dem na fa te dafa daan dox ak tànkam wa ilaa mu war fas woy laa mu war gileem kon loolu ak jokk ak ak bokk ak jokku kóllëre ak siyaare boroom xam-xam ak siyaare boroom maanaam maanaam wàlliyu loolu lépp mënees na ko roy ci Cheikh Ahmadou Bamba mu nekkit koo xam ne kii dëddu àddina gi gi gi gi forme bi gën a baax ci dëddu àdduna gi la sëñ Tuubaa yoroon dëddu àdduna bi dafa am ñaari form am na si ñoo xam ne ñi dañ koy bàyyi mutalaxan moom nga xam ne maanaam maanaam duñ samp sax kër ñooña loola seenu yoon la waaye am na yoon wu ko gën mooy yoon wi sallallahu alayhi wa jaar nga xam ne dafa yegg ci dañoo dëddu àddina ba noppi jëmmal ci àddina lu àddina bépp mën a jariñoo kon bëgguñu nga wàcc àddina wàccin woo xam ne wii doo fi def dara luñ mën a jariñoo moo tax Sëñ Tuubaa di wax ne euh, di nettali ci masaalik ne dëggi dëggi dëggi dëddu àddina ci xol lay nekk mais nekkul ci yëre yu tilim wala yëre yu xar wala wala ñàkk taxawal leen ñu àddina waaw loolu loolu bokkut ak dëddu àddina dëddu àddina gi gën ci xol lay nekk ndax alxuraan day wax ne falilaahi izzatu wali rasulihi walil muminina tedd nga yàllaa ko moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jullit ñi kon bëgguñu jaam bi mu wàcc àddina ba du ci mën a jariñu waaye du ci mën a jariñ keneen forme boobu it am na ci niti niti yàlla yi ñu ca jaar waaye bokkuñu yoon wi sallallahu alayhi wasallam jaar te Sëriñ Tuubaa day wax ne alxayru fi maxtaarahul muxtaaru laa fi lazi nufusakum taxtaaru la la gën te gën dëgg dëgg dëgg mooy li ñu sallallahu alayhi wa sallam tànnal waaye doonut li ñu tànnal suñu bopp kon sallallahu alayhi wa li muy tànnal mooy da ngay fàggul sa àddina ba mel ni doo fi jóg fàggul sa alaaxira ba mel ni suba ngay dem moo tax Sëriñ tubaa noonu la dundee woon ci àddinaam moo tax muy wax ne xaqiqatu zuhdi bi qawli man naqad tarkuka qasdahu eh, bi qasdi bi qawli eh, tarkuka qasdahu bi qalbin li samad kon noonu mooy dëgg dëgg dëddu àddina da ngay da wan ah, sa àddina sa xol ci boppam moo dul jàpp àddina waaye nag tedd nga ji fi nekk nag wax fee jëmmal ci sa sa kem sa kàttan boo waree am am néeg nga nga nga fexe ba am ko ndax sa baay bi muy dangaa nit bi mu gane àddina daa fekk ay way juróom ñu nekk ci dara kon dara jooju war na koo jëmale kanam bu leen fekkee cib néeg war na koo def bu leen fekkoon cib ëtt war naa di jënd góorgóorlu ba am am néeg bu dem néeg la war na am kër bu dee kër la war naa am dëkk bu mu dee bu dee li war naa am yeneen réew kon foofu la sëñ Tuubaa tegoon tànkam googu mooy dëddu àddunam yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tegoon tànkam loolu moo ko jural mu nekk koo xam ne li mu wax ne suñu borom na bëxtani am si tanbiihan ara ajaban loolu dafa dal sëñ tubaab ba boo xoolee aw doxinam dangay ngay defe ne àddina rek moo ko tax a jóg boo xoolee diggam ak boromam da ngay defe ne kii xamul lenn ci àddina te boo xoolee ci ñi gën a xam àddina ak ñi ko gën a jekku ak ñi ko gën a jëmmal ak ñi ko gën a dundal ak ñi nga xam ne ñoo fi gën a jàllale aw nit ci ci nit yàlla yi xamuñ ci ko mel ni si Ahmadu bàmba ndax doy na ci rek li muy xat-xat-xat li muy li muy nekk ci tartar yu diis yu yàgg yooyu tar yooyu ci biir noon yi terewut liggéey na fi ci wàllu bind loo xam ne àddina bépp mën nañ cee jariñu kon loolu wàll googu effort la boo xam ne bii def na fi taxawaay boo xam ne bi àddina bépp mën nañu ko dara doy na rek ci wenn bayitu Sëñ Tuubaa bu ko àddina bépp jëloon di ko di ko di ko pratiquer même ngànnaay yi nga gis ci diggante réew yi du ci am ndax wax na ne wakun maa annaasi jamian dëhraka kama xeb ay yakunu maaka mu ne lépp loo xam ne nii bëggoo nit wax la ko bëggoo nit def la ko bëggoo nit xañ la ko bul ko bul ko wax nit bul ko xañ nit bul ko def nit ni nga bëgg nit ñi àndee ko ak yow na nga ko àndee ak nit ñi kon gàddu sa ngànnaay di làqatu nga xam ne bëggoo waa ji gis la nga fas ko yéenee door sa ngànnaay te bëggoo mu dóor la sa ngànnaay wuute nga ak njàngam Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa li mu wax mooy wakkun maan naasi jamian dëhraka kama tuhibbu ay yakunu maaka lépp loo bëggu nit def la ko lépp loo bëggu nit wax la ko lépp loo bëggu nit jëmale sa kaw bu ko wax nit bu ko jëmale nit bu ko def ci kaw nit na ko def comme sa bopp ni nga bëgg nañu àndee ko ak yow na ko àndee ak nit ñi wax na it ne tumma nasihatu li ahlil baari xayrun min al jihaadi fil kufaari nee na it bu fekkante ne nii njàngale suñ Tuubaa àddina bépp jëloon nañ ko ngànnaay yi moom luñ ci mën a defarit day mujj ci ci meereer lay mujj ndax nee na laa biire bindeef yi wax leen lu leen di jariñ bañ mën caa jaar jariñu wan leen lu leen di lor bañ mën caa bañ mën koo moytu mucc ca Sëñ Tuubaa nee moo gën fetal jihaar kon nag xalaat bi bi waa àddina bi yor ci di defar ay ngànnaay ngir seeni morom te buñ koy jëmmale ci seen kaw dañuy làqatu ngir bañ ñoom it ñu jëmale seen kaw wuute nañu ak sëñ Tuubaa ni mu gisee àddina waaw waaw loolu kon mooy bi forme bi nga xamee ne bi mooy form bi nga xam ne ci la jaar mooy biñ ko waxee ne ko yow dangay ngay mu ne waaw naam damay jihaad naam waaye nag man jihaad joo xam ne ji day rey ay ay ay góor ak jigéen ak i mag ak ndaw ak i Muhammad ak i Abdullahi jooji jihaad taxumaa jóg man jihaad ji tax a jóg mooy ci xam-xam lay tege waaye ci ci ragal yàlla lay tege waaye ci maandu lay tege waaye ci defar lay tege waaye du nekk ak rey ak toj ay ay ay kër ak i euh, mabb ay ay ay dëkk ak gàddaay loo ay mbooloo lor ju day noonu loolu Sëñ Tuubaa nee na forme boobu boobu forme jihaad moom nee na bokkut ak jihaad bi nga xam ne moom la moom la amee woon moo tax muy wax ne nabbahtukum maan xalaa kaddin badaa lii qabla an ara ridan mu abada mu ne yéen ñëpp yéenaa leen ci ngërëmul yàlla loo xam ne lii jiitu ma ci jot dund naa xat-xat yu metti ak tartar yu metti yu diis yu xat yu yàgg yu tar te lëndëm te metti jiitu may jot ci ngërëmul yàlla kon yoon wii mooy yoon wi nga xam ne Serigne Touba fi jaaroon mooy day fàggu àddinaam ba nga defe ne du fi jóg di fàggu àllaaxiraam ba nga defe ne suba lay dem nii mooy sëñ loolu tax na ba way juram moom ku xam na ne maamam maamam jijur jur maam baayam ma nga mbàkke ma nga jolof kon sëñ Tuubaa maamam mbàkke jolof am na fa maam am na maam mbakke bawal am na it waajur Mbàkke Kajoor am na it way am na it ay ab diir bu nekk xuru Mbàkke kon man nga ne mbakke Mbàkke ga ca Jolof Sëñ Tuubaa am na fa ciir bu rëy Mbàkke Bawal mu am fa ciir bu rëy Mbàkke Kajoor mu am fa ciir bu rëy ndax waajur ma ko sanc xuru Mbàkke mu fa ciir bu rëy ndax fa nekk ba mata dem dem jàngi waaye jom ak ngor ak fit ak nangoo liggéey ak gore moo tax mu bàyyee yooyu yëpp ay bokkam tàbbi ci àll bi dem daaru salaam ci ab àll loolu kon ci liñ wax ne maanaam forme bi dëddu àdduna gi gën te sallallahu alayhi wa sallam ci jaaroon ci aw ay saxaaba ay saxaabatu ya moom la sëñ Tuubaa yee salaat moo tax mu ne euh, mu ne moo tax mu ne euh, mu wax ne day yeesal sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa kon foofu la jógee waaye li ci gën a yéemu mooy sëñ tubaa ci leen gis koo xam ne mubtadaam bu ne xabar ja ci suñu borom la koy delloo lu mu rek ci bu ko yëkkatee ci suñ suñu borom la koy delloo bi mu te dëkk bi mu jëkk sanc daaru salaam la xam nga bu fekkee dañ ne dañ ne dañ ne ñaseen xam nga bu dee laayeen bu dee canaba bu dee timit fu mel ni siin muxtaar ak fu mel ni masalan piir ndaween dëkk yu bari yoo xam ne euh, da ngay daal di xam ne dëkk bi ba ci Mbàkke Bawal Mbàkke Kajoor xuru Mbàkke Mbàkke Jolof loolu kon boo nekkee ci ci dëkk boo xam ne bii dañ ne Kajoor la nga sant si waa dëkk bi moom danañ xam naka nga placé ci dëkk bi moom waaye loolu nag sëñ Tuubaa bi mu ñëwee da koo def muy kër yàlla moom addina bépp maase bokk ci mu ne Daaru Salaam ñëpp yem ci muy këru yàlla mu ne Tuubaa ñépp yem ci doo ci gis mukk esthétique bu sant Mbàkke warut waxut al yi bu bi ñëwee Daaru Salaam Touba Daaru Minan Daaru Quddus Daaru Rahman noonu la Sëñ Touba foofu dëkk bi yépp daal di koy joyal jox ko suñu borom jaamu yàlla bu ko ronu kenn du la xool bëtub yow mi kat sa maam sañ ci doon dëkk bi bu dee ci yoonu murid yi tamit muridullahi la ko tuddee ku dem ci suuratu ruumi da nga ko fekk lillazina yuriduuna wajha llaahi ulaayka hum muflihuuna loolu mooy baas bi nga xam ne fi la tëral baasub yeneen yoonu muridu muy muridullaahi bu fekkee tamit ci summi ay dàll la boo demee ba ci suratu taaha da nga ko fekk faxla naalayka innaka bil waadil muqaddas tuwaa la xuur a tudd bu fekkee ci yarum murid la mooy nga xam ne teggin yi nga xam ne sahabatu rasul yi dañ cee suñu borom da leen a xamaloon yoon wi ñu war a jaa ànd ak yónni sallallahu alayhi ñu jaaroon Sëñ Tuubaa yeesal ko moom ku dem ci suuratu xujuraat dana ko ca fekk bu fekkee tamit ci li nga xam ne dañ koy tooñee gars yi naan nuyoo murid ku dem ca suuratu euh, mujaadala moom it da nga ko fekk muy wax ne bu ngeen di nuyu yónni sallallahu alayhi wasallam na ngeen ko jox hadiyatu sallallahu alayhi wasallam du lekk sarax liñ koy dafa du baatu sarax maay hadiya la jublu loolu kon mooy li nga xam ne moom la yeesal ci sallallahu alayhi wa sallam jaaroon bu fekkee ci njëbbal la ku dem saaru bàqara da ko fa fekk ci sidna ibrahima bi mu naan isqaala lahu rabbu aslim qaala aslamtu rabbil alamin ba ci salixa ak ak sidna souleyman yooyu yëpp di xeeti njëbbal bu dee ci jaayante it ku dem fatxi da nga ko fekk kon sëriñ bi ci boppam lépp noonu la ko def da koo teg ci alkitaabu wa sunna lii mooy Cheikh Ahmadou Bamba ba tax ci nangoo liggéeyam googu nga xam ne ci la xuus ku yar ci la yaru defar ci ñim defar mu yar leen ci ak ñim jur loolu yegg na ci ci at yee ci ginnaaw bi recensé Serigne Touba ñim jur ak ñim yar jëmmi Serigne Touba ak ñim jur ak ñim yar biñ xoolee dëkk yi nga xam ne maanaam sos nañ ko ci biir senegal fekkoon ko mu nekk ab gott bu kenn moomul ñu ñu wàcce fa ni ni wind jëflante fa ak malaya ak ya ca aju ci nga xam ne bis bañ ci jëkk-jëkk wàcc lenn luñ niru ndox bu amul ay mbuus yu ñu yóbbaale fekkuñu ko fa ñu gor ko ba mujj di wiil yii di ay wilaas àddina bépp da ci jariñu ñu mën cee tudd benn ci tuubaa loolu biñ ko recensé ci at yële ci ginnaaw liñ ci jot a xam mu leer ñu nañ ñi nga xam ne saa boo yoree sa oto ñëw man nañ ji ànd ak yow naan la Touba Daaru Moxti Daaru Salaam ba muy cinq cent soixante-douze villages dëkk ak juróom-ñaar fukki dëkk ak ñaar yoo xam ne ñi sëñ Touba jur jëmmi sëñ Touba ak ñim jur ak ñim yar kere nañ ko ci biir réew mii kon dëddu àdduna googu nga xam ne mooy gisal salama forme bi indi woon mooy nangoo liggéey te dundee saw ñaq tey raw te jéem a raw ak raw la seg jaboot lii sëñ yoon wii la jaaroon kon waaw waaw mu ne xaaloo safihun ndeysaan li sarfi anhumu basari day def ne nit saa boo ko saa bu wuutee aku bëggam rek ak ndof lay daal di classé ki nga xam ne àddina rek la bëgg saa bu gisee ki doon àddina jamono bu nekk ak ndof la koy teg looloo tax nag muy wax ne bu fekkente ne nii maanaa si àddina ji ngeen teg seen bët ne ko jàkk mu jaral leen lu nekk ak sama borom mii ma teg bët ne ko jàkk mu jaral ma lu ne ba man loo ma ginnaaw àddina bu fekkee ne loolu ngeen jàpp ne moo di ak ndof man de ndof googi doonu gu may lor te li ci gën a yéeme foofu mën na fee jàngi sëñ Tuubaa ci tedd nga jikko yëpp mooy ngor feeñ na fa ndax booba fit feeñ na fa jom feeñ na fa doyloo suñ boroom feeñ na fa jeex tàkk ci bëgg boroomam it feeñ na fa ndax jamono boobu la si ma waaye juróom door wàccu liggéey muy sëñ Mbàkke Mor Anta Sali yaa na ko yàlla dooli tedd nga sëñ Tuubaa toll ci fanweeri at yu yées ay ay weer waaye juróom toll foofu ci àddina wuy ji boroomam bi mu koy jëlee deqali bi mu koy jëlee Mbàkke Kajoor di ko yóbbu deqali sëñ Touba jëmmi fas wu mu war moom ko rek amu ko woon kon foofu ngor ak jom ak fit ak doyloo yàlla feeñ na fa sa jur yi door a génn àddina nga xam ne ki nga xam ne moo nekk ci buñ ko doon misaal tey daraje président de la république la bokk la yor ñu ne lañ moom boole boole ak moom nga ne ruus naa malaayika suñu borom yi di ma gis may séq ay jéego di jëm ci beneen buur bu dul moom loolu kon te moo na foofu mu toll de mi ngi toll ci fanweeri at ay weer mi ngi toll ci ñàkk wàllu koom ba amul fas wu mu war te teewul mu muñ loolu di niru teraanga foofu mu toll de booba amul kenn koo xam ne kii man nañ ne moom lañ ko rusee ba tax mu sukkandiku ci doylu gu mag gii ndax boobu way juróom moo nekkoon xaad yi gënoon a kawe ci diggam bokkam yëpp mu wuy ji boromam boobu it yoonu murid sosoogut bañ ne taalibe yi la yaakaar ba tax loolu mën a am kon foofu tumuranke gu rëy ñàkk way toll ci aasub fanweeri at yu yées ay weer àddina bépp dëgg mënal way waajur mu xëy na mes ñu lay séentoo lu nekk nga gàntu yépp ngir namm suñu borom tabaaraka wa moo tax Cheikh ma Fall bi sëñ Tuubaa jógee ci géej gi ba kilifa laaj ko ne ko waaw dañ maa wax ne Cheikh Mouhamadou Fadil la wala ak keneen ku mën a doon dafa laaj Cheikh Ibrahima Fall ne ko waaw yow Cheikh Ahmadou Bamba mii sun waa ji ba nga ko xamee ca Mbàkke Kajoor ja ak Mbàkke Bawal ja ak Tuubaa ak Mbàkke Bari ak bi demee ci géej gi ba tey jii ñu ko gisee waat lan nga xam ci moom lu soppiku ci moom mu ne ko ah sëñ Tuubaa bu fekkee am na lenn loo xam ne xam naa ko ci moom lu soppiku ci moom yaar lay doon muy bijaaw bi ak kaala gi kon yaar yooyu mooy yi ci dolli ñu wàcce foofu sunuy kàddu tey yëgle ne jëm amuñu wenn lay ci kon mën a roy ci si Ahmadou bàmba eh, faddulun xusoo si yun ji mooy xaadim rasul ji waaye nag Abdullahi ji nag moom la wax ne nañ ci jàpp mooy ci def ko muy sunu seetu ñun murit yëpp muy sunu àndaar di sunu nattukaay ci wàll yëpp bi ci des tamit ku boor ku boor bukki rek xaj baw la ñu bari dañuy ragal xeer yi jóg di jëm si ci ñun ñu ànd si Amadou Bamba mais loolu ku xam xam histoire xam l'islam xam si Amadou Bamba loolu doo ko def muy dara ndax fi mu toll nii bépp koo xam ne kii dafa soobu ci ab tali saa boo déggee ñi oto buy klaxonné jiitu ga ko waaj a jiitu oto ba ko jiitu dong lay waxal waaye oto ba ci ginnaawam moom taxul muy klaxonné kon jiitu giñ jiitu dëgg mal yàlla dëgmal sëñ Tuubaa ànd ak sëñ dëgg dëgmal yàlla loolu nañ ci gën a teg suñu tànk mooy ci ne ci jàkk bi may mujjee mooy waxtaan wu sëñ Mor Khady doon waxtaan te sëñ Cheikh Modou Moustapha def ko ko dafa waxtaan ba noppi mu mbokk ca biir waxtaan wa mu ne ak taalibe nii lañ koy téye dañ si daan dañ nikk sa ñaari loxo ne ci jàkk sa ñaari bët ne ci ne ci teg teg sab nopp ne ci ne ko ngëjj ci sa gémmiñ teg ci sa ñaari tànk bu la nit ñëwee ne diw kaa ñu dem sàngam te loola wuute ak taalibe nga ne ko dafa am lu ma teg sama tànk te damay bañ bu ko yëkkatee mu rëcc ma bu la ne xoolal nangam mu wuuteeg taalibe nga ne ko dafa am lu may siiwër te dama bañ mu ma bu la ne déglu nangam nga xool ko mu wuuteeg taalibe nga ne ko dafa am lu may déglu te damay bañ mu rëcc ma bu la ne boo bëggee wax loolu wuuteeg taalibe nga ne ko dafa am lu ma seex te dañuy bañ mu wadd bu ne la kon bu ne la kon bu ne bëgg nga téel ma nangam nga xool ko mu wuuteeg taalibe nga ne ko dafa am lu ma téye te bu ma ko bàyyee damay rëcc kon nii la si Mor Khady si wax ne noonu la ñuy téye ak taalibe beneen bi ci des sëñ Malick Ba si laa koy tëjee moom it sëñ mag ñi dañ fi yóbbu seen seen i seen i doom ak ñu bari ba ci sëñ Balla Faali Jeng yóbbu woon fa da taawam ba si Ibnu Karim Jeng Balla Faali ba fa sëñ Maalik Basi si noppee ci moom ba noppi yebal ko mu dellu si def ko ne sëñ Maalik Basi daf ko boo demee nga waxal ma sëriñ Balla Faali ne ko sëñ Maalik Basi si nee na bul dalal gan xam nga màggal Tuubaa gi bañ lay defar aw interview nga am bul dalal gan loolu mooy la Sëriñ Tuubaa waxoon ca Masaalik ne kalaamu lawliyaa yi lastu addahamu li anna nii ana ana wahum humoo kalaamu lawliyaay lastu afhamu li anna nii ana ana wahum humoo moo tax nag bi ko sëñ Abdou Dieng Karim Abdou Dieng Abdou Karim Dieng Balla Fall ji ba noppi sëñ Balla Fall Dieng dafa yëkkati loxo mu tedd ba teg ko ci dënnam ba daal ne ko xii yow de sëñ Abdou xamoo li ma sëñ Malick Ba si di wax daal ne ko xam nga lu sëñ Malick Ba si jubla waxa mu ne ko déedéet mu yëkkati loxoom bu tedd ba teg ko ci dënnam ba daal ne ko damaa jubloo wax ni ma li sëñ Bàmba def ci man doy na ba ma ci dolli dara dara dara dara kon loolu sëriñ Tuubaa rek nañ ko récité du ñu amal njariñ ci dara dara dara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah jërëjëf sëriñ Fallou si waxtaan am na solo lool te itam tënku na te bari njariñ ndax li sëñ Tuubaa waxoon ne li gën ci wax mooy wax ju gàtt te dal moom mooy li gën ci wax te bari njariñ lool. ndax wax dana dana gudd te du tedu du te du doon du am xikam waaye bu gàttee te te bëree njëriñ rek doon wax ju am wax ju am njëriñ